kaay gi na la nga xam ne moo koy firnde la ay treize heures lañ ko fa yóbboo booba nag maanaam tàngoon na lool cellule bi nga xam ne fa la ñu dugal Cheikh Niass si la ñu ko joxe nag ak wantaay ngir nag mu daal di upp yéen kaay gi nee na ab agent police moo ñëw jël ab téléphone jox ko Cheikh Niass ngir nag mu waxtaan ak jabaram ji nga xam ne moo nekk bitim réew yéen kaay gi nee na waa commissariat ba yemuñu foofu ndax nag mbokki Cheikh Niass yi nga xam ne ñoo ñëwoon doon ko seet si maanaam bàyyi woon nañ leen daal maanaam ñu gis ko tranquillement amul benn jafe-jafe yéen kaay na ci xëlim ak bu ñu waxantee dëgg commissariat bu wàqi naan goo nga xam ne fa la ñu jàppee woon nag seex Niass journal bi nee na traité nañ ko fa good fine ba tey ci biir journal bi nee nañu nag doomu Cheikh Niass moom nag daan nay firndeel sax ne Cheikh Niass dafa saaga ki nga xam ne nag mooy policier bi yéene kaay gi nee na Cheikh Niass moomee nag yurtoon assurance yurtoon carte grise nee na daf ko fàtte ba tey ci biir journal bi di Rewmi Quotidien soxna Cheikh Niass ci yéene kaay gi moom nag nee na daala wóoluwul benn yoon te gëmul autopsie bii nga xam ne wax nañ ne nag Cheikh Niass maanaam mbirum suukar su yeeg waaw ñing ñing patati patata moo ko rey jabaru Cheikh Niass daal contre autopsie moom la bëgg yéen a kaay gi de ko Quotidien nee na Cheikh ñas nag faatu na waaye na ngir ñu denc ko mbir mi metti na lool ndax njabootug Cheikh Niass jamono ji ñoom am nañ lu leen naqari lool ndax nag njabootug Cheikh Niass ñoom nee nañu autopsie si boppam gars yi ñoo ngi koy wax waaye autopsie amul ci mbir mi yéen a kaay gi de l'Observateur nee na nag leen na bi nga xam ne moo nekkoon wànqi naan te ñu jëlee ko fa boo muytuwule nekk te ñu jël ay daan ci ak ndoddama yéen gi di réew bàyyi mbir moomee xëy duñu xibaara naan ñu ren ji gàmmuk Tiwaawoon du am mu nekk ñaari at yu toppalantoo yoo xam ne maanaam amul Serigne Babacar Sy Mansour moo ko xamle coronavirus bi moo tax yéene kaay gi di libération xëy duñu xibaar naan ñu entreprise bi di Ecotra moom ak état bu Sénégal ci ab guerre judiciaire la ñu nekk yéene kaay gi di Walf Fadjri nee na Sénégalais yi bay boo nag ñu xaar maanaam yokk carburant bi Sénégalais yi bay boo ñu daal di koy xaar maanaam essence bi ak gasoil bi yéene kaay gi di réew xëy duñu xibaar naan ñu nag ñi nga xam ne ñooy commerçant yi bañ a respecté lu jëm ci wàllum wàññi njëg yi am na lu toll si junni ak juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak benn ci ay commerçant yoo xam ne convoqué nañ leen am na lu toll si juróom-ñetti junni yu fegg juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci ay boutique yoo xam ne contrôlé nañ ko yéene kaay gi na am na lu toll si ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay millions yoo xam ne maanaam nag waa ministère du commerce teg nañu ko loxo ci commerçant yi yéene kaay gi ñu xëy fekk fa Malick Gakou nee na bu ñu waxantee dëgg état bu Sénégal dafa la ji te train de vie de l'état la ñu war a wàññi yéene gi di Rewmi Quotidien nee na Guy Marius Sagna daat nañu koy mandat dépôt ci kàddu yi nga xam ne yëkkati woon na ko teg ko ci derub gendarmerie libération yéenekaay nee na ginnaaw suba jeudi la ñuy atte ki nga xam ne mooy Guy Marius Sagna yéenekaay gi di Vox Populi nee kilifa Kilifeu ak Simon tey jii dana ñu leen déglu ci ak xóotal yéenekaay gi di L'As nee na rey gi bëri na lool ci Sénégal est-ce que nag waruñu andiwaat peine de mort yéenekaay gi di La Tribune nee na insécurité bi nga xam ne moo nekk ci dëndu Afrique jéggi na dayoo Sénégal nag moo nekk fanweer ak juróom benneelu place yéenekaay gi la las nee na lu jëm ci wàllum dem beeg dikk bi syndicaliste yi mer nañu loola nee nañu benn fan ci weeru novembre danañu gàllankoor dem beeg dikk bi yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na de la république juge Demba Kandji daan nañu koy installé niki Demba turbine yéen kaay nee na nag ndax Demba Kandji dina def loo xam ne mooy tane Alioune Badara Cissé nga xam ne moom lañ ko dénkoona yéen kaay gi di mandat nee na juge Demba Kandji en tout cas daal gars yi ko Sall nag dina daal di consulter leaderu benn bokk yaakaar la séenekaay nee na waa APR ñi nga xam ne ñoo nekk nag ca diwaanu parcelle ñoom ñu benn yoon ci benn bokk yaakaar di jiital Moussa Sy yéenekaay gi de la témoin nee na PDS seen njaayum carte mi ci diwaanu Rufisque maanaam ci pëccxoo ci ak xeex bu métte métti ca la mujjee yéenekaay gi di enquête nee na élection locale yi dina bëri ay technocrate lool technocrate yoo xam ne léegi daal dañoo mujjee nekk li nga xam ne nag mooy ay politiciens yéenekaay gi di estat xëy nag ci éliminatoire Sénégal gi